وصل للحق من الحق المبين لي خادم ما بان وما ليس يبين وصل للحق من الحق المبين لي خادم ما بان وما ليس يبين علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وتلق daaru ñaaxeen ñu gën koo xam ci ñaaxeen ab dëkk la bu am taarix ci yoonu murit ngir nekk gu fa cheikh Mouhamadul Moustapha ibn Xaadim Rasoul nekkoon ana dëkk bi la di Daaru Ñaaxeen fan la nekk ci biir réewum Sénégal. Daaru Ñaaxeen mi ngi nekk ci digg Kajoor ndax mi ngi daanante ak arrondissement bi lu toll ci genn wàllu kilomètre muy arrondissement bi mu nekk ci arrondissement bu Ñaaxeen département bu Tivaouane région bu Thiès foofu la euh, taxaw nekk itam ci milieu boo xam ne. bu doy woon bi fi sëñ madu di indi sëñ Modou Moustapha ndax dafa nekkoon foo xam ne e, bëriwut woon ay e, ay sëriñ moo fi ëpp ak i sàmm xam nga ñooñu nag ci jamono yooyu sëriñ bi lu mu gisut ci téere bi rek day wax ne loolu amul sàmm bi itam moom looy wax moom te waxoo ci wàllu àll bi ni mu sëkkee ni affaire bi demee du du la déglu ci jamono yooyu nag la bi sëñ Modou Moustapha indi sëñ Modou. daaru ñaaxeen maam Cheikh Anta Mbacke borom daaru salaam ak gaawaan moo ko sancoon gannaaw bi nag mu rafaatale ko Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacke ibnu Xaadim Rasoul. sëriñ Abdoulahi Sylla gën nañoo indil ay leeral ci sancub dëkk bii di ñaaxeen sancub daaru ñaaxeen 1914 waaw 1914 lañ mën a jàpp ndax jàpp gi mooy euh, tindoo di ak nayde nayde nayde wax nañ ne sëñ baa ngi ko sanc 1913 tindoo dee jiitu nayde laa wax 1913 dafa nawet dafa nawet noor fa bañ tàmbali ruuj ba ruuj bi waaj a jeex sëñ eh, gaawaan jox ko ñaaxeen. Hmm, kon sëñ gaawaan moo fi njëkkoon a dëkk. moo ko joxee kii bi nag nee ñu mu woo sëñ Modu booba xam naa am kersa ruuj bi set hmm. mu di ko fa jëlee di ko jox feneen. sëñ Modou boobu amoon na beneen dàkkantal wala sëñ Modou Sylla rek lañu ko daan dàkkantal. Modou Sylla ñaaxeen. ñaaxeen ji daal gën a siiw moom. waaw fii la ko amee. nee na mu ne ah, de man kii bi daa xaw a sori. te ngeen ruuj ba noppi waaye mu ne ko ah Mbàkke nun di ndigal rek la ñuy déglu. mu ne ko ah eh, damaa jox dëkkam bee ñuy wax ñaaxeen. te fu ma nekkul man dama bëgg sa jëm ne fa jëmal fa sama jëm mu ne ko waaw mu ne ko xam nga way dem ñaaxeen fooy aw mu ne ko ah Mbàkke ko dégg de waaye mu ne ko da ngay dem ba njaareem nga jàdd soo demee gaawaan nga laajte gàdd soo demee gàdd nga laajte kër nganna soo demee kër nganna danañ la teg yoon bi jëm ñaaxeen nee sëñ bi daa daal di jóg jël ay yéereem daal di koy def si ci ci ci kii bi daal di takk ndigam mhm. daal di for yoon bi fekk nañu boobu sëñ sëñ eh, Mouhamadou Moustapha mi ngi jëm Dakar mhm. nañu ba ko dabee mu taxaw wo ko mu ñëw mu ne ko yéegal sëñ bi ñu dem ba njaareem mu ne ko noonu ma la waxoon rek def ko noonu la sëñ Modou def ñëw ñaaxeen macha waaw bi mu ñëwee ni la ko waxee rek euh, sëñ gaawaan moom daa mel ne sanc bi ay coono rek ka fi fekk ndax koo xam ne dangaa sanc te kenn ku lay jox fekku la te ku lay laaj rek kay ñëw xam nga bu yàggee booba tuut nga waaw mu ne ko nag kon jox dëkk bi moo tax sëñ Modou Moustapha mande ah man ma ak moom mhm. ndax man fi sancee li tàmbalee fii ba ca ñaay ba mhm. ku may jox rek ka fi fekk waaye ku may laaj fekku ma fi kon xam ñoom seen diggante dafa am différence bu yaatu booleeg tund yi itam bi bëggoon fee taal leer goo xam ne day da kàpp lam yanusati jaalibu niiraani aw jaalibu aarayni fi lxusraani lam yanxuni daraw naari dunya waqtasani lbaaxi bi xayri sunya mbaagol kat ginnaaw nit ki nee ñu sëñ Tuubaa dane bi ma wootee ñeenti gox yi ma woo ñett yi ku dikk am na lu ma dindi ci yow def ci yow waaye Mbakol di ba ñu dama dolli la yoroon waaye gisuma lu may dindi ci ñoom ndax jàng liggéey ah, dimbalante ñoom ci yii lañ doon dund leneen njàng moomu it ba jantub tey mooy nekk gone da ciy dem ba am ñaar fukki at ak juróom bu ko bu ko bàyyam ne wut ne demal defi nangam xelam xelam xalaatu génn kër gi loolu mën naa ne fi mu ne mbaakool rek la am amul feneen yar yooyu nag lanu sëñ Mourou Moustapha dimbalee ba nga xam ne wax dëgg yàlla tund ngi xeewlu ñi nga xam ne tuyu taalu yi daa rox te dund dund googu woote nañoo taalibe yi ci des ngir ngir yëpp nag laa wax ñu doon tijaan di fi ñëw ak ñu doon xaadir di fi ñëw ak ñu doon murit di fi ñëw ak ñëpp ci taalibe googu la ñuy dund boo fi ñëwoon sëñ sëñ ñëw fi nga xool doo xàmmi tijaan bi xaadir bi laayeen bi doo ci xàmmi kenn ñoom ñëpp dañuy bokk fi suuf ba sëñ bu ñëw wëddugu ñu ñu waxtaan ملكني ما لم يبيو عني وغاد لي بقاو بالمني ginnaaw bi maam Cheikh Anta Mbacke dëkk bu tedd boobu di ñaaxeen Cheikh Mouhamadul mustafa Serigne Mouhamadou Sylla ñaaxeen la ko dénkoon ñoom ñaar nag seenub diggante lu yàgg lool la. sëñ Modou moom ànd na ak sëñ Modou Moustapha at yoo xam ne bu doon ci jamono ji dañuy wax ne wàcce nañ ko wàcce woon na ko mu àndaat ak moom mu wàcce ko mu àndaat ak moom ndax moom ma ngi ko fekkoon jolof jolof la jébbalu woon ci sëñ Mourou Moustapha sëñ Touba la jébbalu woon sëñ Touba mm-hmm. boole ko ak sëñ Mourou danay wax ne bi mu yeggee jolof ngir mu jokk ci sëñ Touba sëñ Mourou Moustapha la jëkk a gis nuyu ko waxtaan ak moom mu ne ko ah sëñ bi defaan yii danoon ku fi dikk te euh, euh, bëgg a bëgg a bëgg maa gis nañ ko wax mu dellu ndax li fi ne ci mbooloo doy na laaj ko fu mu jóge mu ne ko euh, ñaxal kër ah, kon nan jéem a gis sëñ bi bañ ko sëñ bi sëñ bi moom mën naa toog ba mu jokkoo mu boole ko sëñ Mourou Moustapha toolu ba sëñ Modou Moustapha bi mu amoon foofu nga xam ne sëñ Modou Moustapha moo doon jëwriñ ja tool boobu jële sëñ Modou tàggatoo bañ fa toogee ñetti at ñu jóge fa ñëw Touba itam fii euh, euh, kii nag ci gara ci armeel yi foofu moo doon sura moo doon tool sëñ Modou Moustapha bi nga xam ne moo doon jëwriñ ji donga yi topp ci moom bi fi jógee itam nga xam ne ba ba ñuy wax nañ sànci génn Touba ba leen ku maam Thierno di wax booba sëñ Modou Moustapha ma nga Dakar te sëñ Modou nee na moom mos a dem Dakar waaye bi ñëwee wax ko ko rek mu ne ko man nga maa may bu subaa mu ne ko waaw mu xëy daal di dem Dakar bi mu demee Dakar yàlla dimbale ko mu gis. Euh, sëñ Modou Kassé mban mbañ jigéen mu ne ko Amadou looy mu ne ah, man de sëñ bi laa soxlaa gis ñu dem ne bañ demee loo loolee ko Modou Gueye waxoon la ko sëñ bi ah Amadou looy ko ah maam Thierno ko dafa ñëw nee na damaa woo ne ku baax ci nee na na ngeen sañ ci ay dëkk Dandu Touba ab euh, nga xam ne bu ñu noddee di ngeen mën a julli si Touba mu ne ab siifoo nag moo di ab kilomètre bu dee ñaari siifoo mooy ñaar ne sanc bi tendoo di sëñ Modu Moustapha yabal ko moom moo ko moo moom sëñ Modu ñu sanc ko ne ba sëñ Modu Moustapha ñëwee it soppiku ca dara mu wuy ànd ak moom feneen fu sëñ Modu Moustapha sanc ba ni sëñ Touba ñëwee Njaareem ñëwee Touba ñoom ñoo ko ànd bi ñu ko indee Daaru Ñaaxeen bi ñu ko indee Daaru Ñaaxeen nag euh, fekk moom tàggat na ko def ci moom xam-xam boo xam ne mën naa la ne kenn amu ko def ci moom dogu goo xam ne kenn amu ko def ci moom fitu woo xam ne kenn amu ko moom daal jëmmi boppam la ko tàggate nga xam ne fu mu ko teg dana xam ne moom moo jëm moom nekkoon fa ñoo yam bi mu ñëwee noonu ko Cheikh Moustapha tàggate woon ci noonu la not sëriñ si fi neen nga xam ne sëriñ si yëpp juboo nañoo moom ci euh, topp Cheikh Moustapha ñi jébbulu ñi nga xam ne itam jébbulu wuñ juboo moom ci lépp lu mu santaane rek ñu ànd ci ak taalibe yi def loola sàmm yi juboon jubóo nañoo ñoom ba bu sëñ Modou Moustapha Moussa ñëw am na ñooñ ba sama mi baayam moom da daa jiital na yi bu jant soo indi ci gannaaw eh, kër sëñ bi ngir wax bu waxtu ñu rattee na yi suba ñu tegal leen fi meew mi bu ngoonee ñu tegal leen fi meew xam ne moom dematul di ko laaji ñoom buñ nee sëñ Modou Moustapha ñëw na rek ñoom ñoo koy indi waa ñaaxeen gi noonu ñaaxeen it sàmma ngi fi woon yooyu saa yu jant soo ku ne yaanu sab tax indi ko xam ne soow mi moom du jeex benn yoon loolu sëñ Modou notoon na ci sàmm yi ci googu euh, si ci googu wet ba tax na mooy nekku daaru ñaaxeen gii fi mu ne képp koo xam ne am nga fi ak taalu bi fii ba ba ngay dem ca ñaay ba gërëme ko sëñ sëñ Modou Sylla ndax moo fi doon jëmmi sëñ Modou Moustapha euh, euh, lépp lu mu santaane xam nañ ne sëñ Modou Moustapha ko santaane. sëriñ bu mag bi bi muy wàcc ab liggéey fekkoon na nag taawam bii di Cheikh Momadul Moustapha nekkoon ci dëkk bii di ñaaxeen foofee sax la bàyyeekoo jaar gaawaan ñëw njaareem ngir taxawul ko ci anam yi mu ko bëggee woon. bañ jullee fajar rek mu daal di dugg ci wata bi daal di wuti njaareem wax na ne bañ demee ba gaawaan dafa fekkan booba maam si Anta woofa commandant di ko di di ko gane ca booba ne bañ demee ba toll foofu mu ne sëñ bi sëñ Ablaye jaar la nu jaar fii kër sëñ gaawaan nu nuyu bañ nuyoo ba noppi mu ne kaa ah, yow de yàlla la andi ne man damay bëgg a am gan te gan gi bu ma sañoon wax dëgg yàlla waxuma la yow waaye ñu sant Màkka ñu bu bari fekke ko waaye yow boo ko fekkee ñëpp fekke nga ko ne mu toog tuuti gan gi dikkul mu ne ko ah man kat mënu toog ndax damaa am njëriñ yitte yoo xam ne ah wax dëgg di ko am mën a yàgg fenn te ñii seeni wax moom mën naa teel a ñëw mën naa guddee ñëw te man daa am yitte yu taxaw la kon nag nag ma yeewi rekk ma dem ne mu yeewi ko mu dem ne ba mu demee ba yegg njaareem nag la fekk xew-xew bi am mu def ca mat gam ca def ba yóbbu ko Tuubaa fii nag daanaka tooli àllarba yi fi nekkan booba nga xam ne moo ko fi santaane woon amu ci benn tool boo xam ne bañ koy ji fekkewu ko walla bañ koy bay wuute na ko ba bañ koy jëri am na ci at moo xam ni nii biñ ko jëree angaar bi te booba ci bekkoor lan ne waaye angaar gerte bi bu mu njool taxawee fii mu njool taxaw fii doo ko séen te du ci séen sa morom ba mu ñëwee mu laaj jigéen ñi ko doon jëri jigéen ñi féete geewet góor ñi féete geewet di ko jox gone yi mu di leen ñaanal ne waaw ana ku ci andiwul ana ñu ci andiwul seeni doom jigéen ñi ci andiwul seeni doom ne ka ah, de suñu dooma nga ca kër ga mu ne bu leen ko defati ndax doom ji ñëw fii kat du ja du niroo jenn ju kon nag ku dif dikkati na nga àndaale sa doom kon lim fi wuute ci àllarba ci nji ak njëri lu néew a néew la kër gi kër gum fonkan la ah ginnaaw bi nga xam ne nag sëñ bi dem na Tuubaa nag jot gi mayeetu ko ko lim fi daa dikk mënatu ko ci waaye teewu tiram ah ki ko fi nekkal mel na ne mi ngi fi ndax wóolu na ko ndax tàggat na ko ba xam ne moom fu mu ko teg rek mel ne moom jëmma ba fa ne moom ci boppam mi dikk na fi wax ne a ah, man de am naa ti ci kër gi ay mbégte yu baree bari ndax man de ki ma jox kër gi bi ma koy jox nee na ma dama lay may sama kër daaru ñaaxeen gi ngir man kat baa ko sañ cee ba fii mu toll gisaguma kenn ku may jox dikk fi ku may laaj doog laa fi gis yow mi sëñ Tuubaa jur nag boo la ko joxee yaakaar naa dana am ñu fi fekk mu ne ah, loolee mu waxande firnde wu ne ne man de fii ba ca ñaay ba ku fi dikk ku may jox la waaye kenn dik fi ku may laaj. man nañ la ne ba bi sëñ bi jógee ak léegi daara yooyu ngay dafa yokk waaye dara wàññikuwu ci ndax def nañ benn waxtaan ñaaxeen gi eh, inspecteur régional bi dafa wax ne lu yàqu si tund yi ci la daramaan ak bopp si laag longoor ko yàq ndax ñoom duñu jàngaloo seeni gone français te ko am sa gone indi ko ñu di ko jàngal alxuraan kon jàpp na ne noo ko yàq bañ demee it ba xam ne tontu war na am préfet bi ne ko ah, am na ku nekk ci ndaje mi kook bu bu bu bu jógoon mën naa leeral lool fekk man lay wax. waaye man ginnaaw xas nañ nu ba noppi. du ma jóg di wax. ma ne ko fa lillaahi alhamdu wa sukru yàlla na balan fee del si affaire bi law bu ëpp seeni loxo ndax ñetti dëkk ngeen wax booba ak léegi longoor gu googu mu doon wax ak ak njool sanc na daara seen diggante matut kilomètre wala ëpp ko lu bari boo dikkee bopp gi ñoom mosuñoo dañ taalub jàngu di fi am waaye nag yokku na ndax daara bu fekkee ne lu ëpp téeméer ak juróom fukka nga fa ñu jël lu mat ñeenti jàngalekat wala juróom loolu ëpp na ñeenti taal wala ñetti taal ya fi daane kon fa lilaay la am du wasugru te at mu ne itam euh, lu mat juróom ñaar wala fukk danañ fi mokkal dëkk bi di nag la fa mag ñi bàyyi woon ba léegi ma nga fa ndono loolu yi nag ñu ngi wéy di ko dundal. fii daanaka ñu li leen seen bàyyi bàyyi loon ba tey mi ngi ak ñoom ñu ngi àllarba yi ah ñu ngi defi siyaare dem Touba ñu ngi ci daayira yi ah ñu ngi ci taxawaay kilifa yi itam ci daje bépp boo xam ne ñu koy laaj am lu ñu fay laaj yaakaar naa ni ñenn ñi nga xam ne ñooy kilifa yi. nga xam ne ñoom ñoo jiite ndaje yi yaakaar naa ne boo leen laajoon dañuy wax ne Daaru Ñaaxeen na fi man defe naa bon loolu la ñuy wax ndaxte dépp lu ñuy laaj bu fi egsee ñoo ci jëkk a matal bu fekkee daayira Seex yee koy laaj ñoo ciy jëkk a matal bu fekkee sëñ bee koy laaj ñoo ciy jëkk a matal bu fekkee danoo dem itam ci carte yi ñu jël ak yi kenn du des ñëpp danañu jënd lépp képp koo xam ne nii kii kii nga am nga tur da nga jënd da nga jënd carte mm-hmm. da nga jënd carte kon nag mboolem li sëñ bi bàyyi woon ci ndigal daal daa yokk waaye dara wàññi kuwu ci waaw ñu ngi ci góorgóorlu bu baax te dafa mel na ñoom loolu waa ma àcc sa tànkub ma xar ci sa tànkub tubay dañ ci àcc yéen bakkan ñoom moom mm-hmm. li fi di bëgg-bëggu sëñ bi ba fi mu nool sëñ sëñ sëñ sëñ Moustapha mi fi ne nañ defoon sëñ Modou Moustapha mu ko raw lañ ko def ci ci ci kii ndigalam rek la ñuy déglu lépp lu mu xam ne nee ñu sëñ Moustapha nee na loola kenn du din ca man ba ñoo cay man te loolu du dara lu ah li fi jiitu woon rek lan loolu ba tey moo fi feeñ mu di muy kilifa gi ni mu jàpp ni ko jàppe woon ba tey ñu fi des itam noonu lañ ko jàppe naa foofu la ñuy daal di daane la rek daal di jàll waaye nag euh, ay ay ay ñu ngi sàkku li nga xam moom moo di jamono ji réew mi rawat na ndaw yi léegi ay njariñ yoo xam ne nii des na ko mën a dinañ ko mën a fàgg mag ñi fàggandiwul leen ko ñu bàyyi ko xel ba ba lu bëri muy kaaraange rawat na jamono ji léegi ni ni mu xaw a doyewaar ba ndaw ñu mel ne man léegi ñëpp daal xaw a euh, fàtte la nga xam ne moom mooy kaaraange yi nga xam ne moom la mag ñi nekkoon <laughs> ah, daanaka ñoom lañ nekkan dëgg la sax de addina bu yëngoo ñëpp yëngu waaye ñoom ne ba tey lañ nekkan a ah, li ci wàññi dara yi wàññi kuu ci te itam jàmm rek mooy dox seen diggante ah kenn ku ci nekk kala mag kilifa nga ko def kenn ku ci nekk ka nga mag ni sa bopp nga ko def benn amu fi benn kabine amu fi ñoom ñëpp ànd ci ci dubo ànd ci diglu ndëgal sëñ bi rek daayira bi yeeg ak ñi waa waa jëwriñ yëpp noonu la ñu ànd noonu la ñu ànde dara loo xam ne ni daal dañu ko woote wax ko kenn teg ca dara loolu daal amu ñoom ñëpp daal danañu ci maate ah menn mbokk moo xam ne dégg nañ la ci lu dul noonu itam duñ la ca baax danañu la ci jële waxtaan ak yow ba delloo ci la ci li nga nekkan waaye duñ seetaan. daara jii de ñi ci jàng ñi jàngoon ba mokkal alxuraan ci dëkk bi war a jàngale te nekk ci ay pexe di lijjanti daara jii ñoo yor dundum ñooñu kon xam nga ne mel na ne ñu ngi toog di jàngale eh, waxtu wu ne dañ leen di woo ne leen dépense bi manqué na wala ceeb baa ngi bëgg a manqué ñu ñu sëf indi wallahi alhamdu wa sukru ñu gone yi fi nekk daal lii la sëñ Modou wax ne la leen seeni maam batale woon ba jantub tey loolu lañ cosaanu mooy kenn ku ne topp ka nga war a topp rek sëñ Modou nag da leen woon ci taalu bi koo xam ne moom daanaka manees na ne eh, kenn kenn nekkul fi barab jàpp naa ne liggéey ne li sëñ Modou liggéey fii ci Mbakol. ngir dunal ndono lii nag sàmm kóllëre gi doxoon ci diggante mag ñoo ñi de njabootug sëriñ bi ña ngi fay amal ay tukki nemmeeku yu am solo ku ci mel ni sëriñ abi bu Mbàkke ibnu Cheikh Mamadul Fadal taxawal na fa daara ju mag ngir jàng ak jàngale alxuraanul karim dundal dëkk bi lee di ñaaxeen sëtub sëñ Tuubaa la waaye yaayam dafa bokk ci dëkk bi soxna Bousso Sylla dañ jox sëñ Balla sëñ Balla Boussa mu am ca sëñ Moustapha Boussa Abdou Boussa ak Daba Boussa mu sëñ eh, Abdou Khadir yoroon mu sëñ Abdou Khadir yoroon mu am ca sëñ Bas ak sëñ Abdou Wahab ñu soxna Njaxaat ñu jox sëñ Fallou mu am ca sëñ Abibu sëñ Abibu moomu nag moo dellu si ne daa bëgg a yeesal kër maamam euh, ñaan sëriñ bii mu may ko mu def fi daara mu ne moom dafay làq gone yi donga yi ñu koy jox ndax bëgg bala ñoo mat a dem ca daara ja mokkal alxuraan xam naa lu lu lu ëpp ñaar fukk ci ñooñu mu doon wax ciy dongaam bind nañ fi kaamil dëkk bi itam mën naa la ne lu ëpp fukk nangam mokkal nañ fi ñan ñi bind nañ ñenn ñi dañoo mokkal ay jigéen lañ ñu yóbbu leen ñu jàngi ci eh, école Touba yi. am na ndaje mu ñuy def moo xam ne. sëñ bi bu ginnaaw tabaski. ñeenti fan bi fan ba. ci lañ koy def. ndaje moomu sëñ Abibu toujours moo koy jiite sëñ Basit ñëw na ci ñaari yoon moom it saa yu ñëwut day yónnee si délégation ak mbàkke mbàkke yu bari nag ñi fi ñëw moom mënee su leen كرامتي كتاب من رفاني بلا الجنان مصنفى عني مهام ماتا خنها نفوسا ولسواي ساقوا تنفيسا إلى سوى نهو تاء الموت نها نفوسا كلا بالفوت مور مصطفى موم du samp luy luy daan samp luy daan moom sëñ Touba mhm. muy taxaw la mhm. ndax sëñ Touba euh, euh, danañ dégg sëñ Madou ne mhm. yoon moom ko mujjee yoon ni ci moom daf ko wax ne ko boo demee neel Moustapha bu mu laajati ndigal lu mat a tee def na ko def lu a tee wax na ko wax te booba euh, mooy ne 1926 la 26 27 moo wàccub liggéey kon xam moom joxoon na ko ndigal euh, lu yàgg doora wàccub liggéey لم تنني مقدمات الموت وقد رفعت بالبقاء صوتي موت ba كابدوني بدلوا من موت نفسي معناني جدلوا tey ñi ngi woon fii ci dëkk bi nga xam moom moo di Daaru Ñaaxeen di di dëkk ci dëkk cosaan yi nga xam ne moom moo nekk fii ci biir Kajoor comme dégg ngeen li nga xam ne moom la ko sëriñ bi waxee euh, jërul ñu leen ci indil ay commentaire waaye nag lépp rek comme ni ñu ko waxoon ca ca ca démb ja ñoom ñu ngi fi leen leen seen maam bàyyi woon ba léegi ci li nga moom di jàng ak jàng jàngale ak bay ci comme niñ ko euh, sëriñ si waxee di leen sant baax leen gërëm di ñaanal sunu maam ñi nga xam ne ñoom lañ fekk si tey euh, suñ borom euh, guddal seenu fan bàyyi leen fi ba ñu yàgg fii ñëw di leen fi fekk di leen si siyaar ndax ñu tim bàyyi xel xam ne dëkk bi dëkku cosaan la dëkku xéewal la dëkku alxuraan la comme niñ ko waxee dëkku dëkku xéewal la boo xam ne nii képp koo xam ne ni xamoo koon wala daa nga dégg daaru ñaaxaan na nga xam ne lii moom mooy li moom mooy fondé dëkk bi la di daaru ñaaxaan kon xam naa dañuy